هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله Malben TV ñoo leen di ñaanal gàmmu jàmm gis-gisam gu yaatu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo taxawal Fonds Médina Baye ngir gunge xadara gi ci projet yi mu am ci wàllum yokkute xam-xam ak wér-gi-yaram Fonds Médina Baye bii nag sunu xalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass rahmatullah alayhi moo ko dekkal xalifa gi cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass xaadimul umma dooleel ko ci fond Medina Baye bi am na lim gu am solo ci wàllum jéego yu mu teg liggéey bi dafay door di tàmbale ak pas-pas wu gën a rëy bokk leen ci ñuy taxawal fond Medina Baye bii lu waay am lu waay mën ci 77 481 04 04 ak Orange Money Mbaawe yi mbëggeel ak cofeelu taalibe xidma moo koy jëmmal. bisimilah asalaamaaleykum. monsieur le ministre xam naa ne jotaay bi yàgg na te kenn mënut wax lu yomb li Madi wax waaye ñu ngi kontaan ci seen liggéey <coughs> ndax daaw toog nañu ma évolution sociale dafay jafe dafay ànd ak kenn xamul. waaye yàlla baax na bi ñu ko waxee xam nga ko ba teeru ko ci xereñ ba li mu a indi ci lore yàlla baax na àggu fa yal yàlla yokk leen seen taxawaay yal yàlla yokk leen seen dëgër yokk leen xereñ yokk leen xam ne responsabilité yi yàlla teg seen mbaat bi ngir ngeen sàmm nit ñi te nit ñi yàlla la ñuy ñu sëñ si déglu ñu dañuy déglu pour waare waaye nag lii doxal réew mi nag moom yéen a ko représenté ci nit ñi donc ci yéen la ko nit ñuy xoolee kon ñu ngi yaakaar si yéen yàlla dimbali leen may leen xamante may leen taw may leen fit may leen fit ba nga xam ne yi xew yëpp mën nañoo nekk nawleem parce que boo nekk nawle dara da nga ko ragal waaye boo xamee ne xew-xew yëpp jafe na jafe na jafe na waaye nit laa parce que nit yàlla bindu puuni du ko noot waaye moom mooy noonu xanaa am na waaye nit moom am dara loo xam ne mën nga koo noot. lu nekk rek ñu nga ko noonu boole boole ci boole boobu boole ci xel boole na ci xel nga xam situation yi ñu toll xel rek la nga def ko nga def ko vraiment kër man war soxna si ma ne ko ba gis président ba gisee monsieur le ministre nuyu ko ne ko maa ngi naw xereñam euh, ndax jafe na jafe yoo xam ne ku nekk tiitoon na waa amutoon xereñte boole jëflante bon mun naa am dëgg dëgg dëgg Sénégal ba tey mu ngi métti moo tax ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal yàlla doon leen kàttan doon leen mën-mën doon leen fit ngeen ñi taxaw taxaw réew taxawaay boo xam ne intérêt Sénégal yëpp la parce que Sénégal yëpp ngeen fi nekkal ku jub ak ku jubal yëpp ñoom ngeen fi nekkal wante yàlla mi nga xam ne loo dénk nit ñi nag yàlla mooy itam du leen bàyyi alors mu jox leen lu ngeen mën téye nit ñi. ci lu nekk ci maanaa ak matière yëpp yàlla dina leen ko may pour ngeen amee ko nit ñi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fii di ngeen fi ñëw ci yàlla Muhammad ci yéen barke yoon ci yàlla Muhammad yenn ko yàlla feeñal ci seen yëpp ba Sénégal yëpp bëgg yoon ci yàlla Muhammad bu gàmmu yëpp gàmmu gàmmu gàmmu rek ba gàmmu passé ñu war a wax leneen loolu yëpp tegtal na bëgg na Euh, yonent yàlla Muhammad yonent nag nee na boo ma bëggee ma bëgg boo dajee pour man dinaa ñëw loolu wax na ko bon nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee suñu gouvernement suñu responsable ñoo ñëw bokk ñu ñëpp ñu gën a leen di jàmm am na mbaax am na yiw am na yal na ko yàlla yokk na yàlla yokk mbaax yal na yàlla yokk yiw yàlla yokk yëkkatiku yàlla dimbale Sénégal. te boole ko ci yoon yi nga xam ne kawe nañ lool àgg nañ fi mu war a àgg yal na ko yàlla def jaarale ko ci seen loxo parce que njàng moo ëpp euh, njëriñ ci xuloo ak xeex ak defante ah yal dimbale leen kontaan nañ bu baax ñu ngi lay encore waxati bisimilah sa kër la sa njaboot la ñun ñëpp ñu ngi ci sa ron parce que ministre de l'intérieur ma ma dama ne ko dama ñoom déet ma ne ko mu ne ma ñemewu ministre de ma ne ko boo wax ko loolu ñu ko ñemewu la waaye nag soo mag moom wax na ñëw dafa <laughs> yàlla dimbali leen jërëjëf incha allah. amiin ñu mu ngi noonu euh, amiin yaa rabbi loolu mooy euh, gannaaw seen i nga En grand visionnaire, Cheikh Ibrahim Niass Baye créa le fonds Medina Baye, dont la mission est d'accompagner la Khadara à la réalisation de ses projets d'envergure dans le domaine du développement, de l'éducation et de la santé. Une initiative pérennisée par le défunt Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass et appuyée par le Khalif Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahim Niass Le fonds Medina Bay compte à son actif des réalisations majeures, mais à d'autres défis à relever. Participez à la réalisation des projets du fonds Medina Bay en envoyant vos contributions au 77 481 04 04. mbëggeel ak cofeelu taalibe xidma moo koy jëmmal فلاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله Malben TV ñoo leen di ñaanal gàmmu jàmm